leen defal lu ngeen ko mënta fay lan ngeen koy wax kon nañ wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba li waral kàddu gii nag dinaa ci ñëw léegi ci kanam ngeen xam fan laa sukkandiku pour wax jërëjëf Serigne Touba damay nuyu sang bu tedd bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam li ñu namoon a def bu ñu duggee fii mooy dem ziar ko fu Sénégal jaaxlee tey ki ñuy njëkk a bokk na ci seen muntaxaa kon yàlla ko yàlla may wér may ko gudd fan lool te ko santee rek santaale naa kilifa diine yëpp biir Sénégal ndax seen taxawaay ci biir réew mi am na ci yéen ñoo xam ne gis nañu sama photo bi ma demee maa yomba ma dem ci teen bi sëñ Touba doon jàppee di fa naane ma tànqajiti si naan ci publication bu ma defoon Facebook 2018 la woon boobu ma ne dinaa dugg kaso ma ne ñi ko andi woon fii de jàppoon nañu ko ne dañ koy toroxal moo tax ñu andi ko fii mais ndekete yàlla foofu lay jaaree yëkkati ko ba abadan daaye man ma dem kaso fàttali ko ne loolu jàngat la war a doon ci mante te loolu bokk na ci li ma jàngee sëñ Touba ba muñee ko sama kaso. mënuñoo am ay phosphate bi ñuy defaree engrais ICS bii di ko defar ñu amaat yeneen phosphate ci ndendoor yi ba pare am problème mu engrais pour béykatu Sénégal ñuy jëndee saako engrais lu mat vingt mille vingt cinq dem trente mille. loolu bu ñu ñëwee incha allahu rabbi dina jeex Touba fii dégg naa benn waay ñëw fii keroog nekk douze nekk fi premier ministre nekkaat fi ministère de l'économie et des finances naan su ma ñëwee dinaa régler problème ndox bu xamoon bu xamoon waa Touba nu ñu ñore wax nañu ko ne yow foo nekkoon ba defoo ko boobu ba léegi ñun ñooy régler problème mu assainissement Touba ñun ñooy régler problème mu ndox Touba ndax ñoom ñu toog ak ab ab ñu toog ñaari mandat réglé wuñ ko bi ci man mandat bii di ñëw ñoo koy réglé